de me réconforter. Je pense que l'éducation au numérique est devenue une nécessité. Mm-hmm. Et aussi mesurer aussi l'impact de, vraiment de ces dérives, de ces dérapages euh, euh, également. Je pense que war nañ ci taxaw parce que du rek euh, la journée internationale des femmes on doit célébrer Nouro Wale cet aspect folklorique a son importance mais à côté comme ni ma ko waxee sànq il faut évaluer les acquis euh, les perspectives et en fonction aussi wax euh, Sénégal fu mu ci toll maintenant par rapport à la question qui m'a été posée et euh, par rapport à la participation politique des femmes je pense que le Sénégal est venu de loin depuis 1960 ay jigéen ñu ngi fi woon di politique. di xeex di nekk au devant de la scène je peux me permettre de citer les Caroline Faye et autres ba si jamono yi ñoom Mama Dior Boye en 2000 ba wàcc si sur cette génération là on peut citer les Aminata Mbengue Ndiaye euh, les Mama Awa Guèye Kébé entre autres de cette génération la mais euh, du xëyuñu rek ak si niveau boobu de participation des femmes. de longues luttes ont été menées pour que ñu agsi fi ñu agsi nii ci participation politique des femmes il y a des acquis effectivement dem nañ ba atteindre ce qu'on appelle la loi sur la parité parité mhm. un exemple en Afrique mais boo xoolee aussi bi ñu amee loi bi Euh, le président Wade sous son impulsion effectivement à les femmes du conseil sénégalais des femmes ak les femmes politiques actrices oui. politiques ñoom ñoo ànd ñëpp amatul coloration ñu xeex li nga xamante ni c'est pour la femme sénégalaise ñu fexe ba ñu loolee cinquante cinquante mais dafa am loo xam ne c'est des acquis à consolider am nañ parité mais boo xoolee dans l'effectivité même de l'application de cette loi sur la parité à chaque fois on a des problèmes surtout récemment avec les élections législatives bu ñu ci noppee les élections plutôt municipales municipalité bi ñu ci noppee dans l'installation des bureaux à chaque fois il a des problèmes il y a eu des recours qui ont été déposés mais soo xoolee même bu ñu pour ñu appliquer waat après loi bi même bu dee dañ ko casser au niveau de de, de la cour d'appel si élection yi parité bi ça a été respecté non la, la parité dans la, la constitution des listes a été respectée parce que sinon la condition la la la conséquence c'est la l'irrecevabilité des de listes maintenant bu ñu paree ci élection yi dañuy installer les bureaux oui installation bureau bi fexe nañ ba y' a beaucoup de bureaux yoo xamante ni la parité n'a pas été respectée fallu que l'observatoire national de femmes je salue nos mamans qui ñu ngi ciy def liggéey bu am solo wut ay avocats accompagner ces femmes là qui ont été lésées dans ces bureaux là. Oui. pour que bureau soit cassé mais à chaque fois que la cour d'appel prononce ou qu'une autre instance juridique se prononce soo xoolee après duñu ko du duñu ko jëmmal. da ngay gis benn góor jiitu nekk maire ñu ne noonu maire bi bokk si. Euh, adjoint au maire bi dañuy commencer pour compter alors que loolu parité c'est homme femme du yoon donc il a mm-hmm. des, des des, choses à consolider mm-hmm. maintenant par rapport à la participation des femmes yombul des femmes doivent se battre maintenant à l'intérieur de leur euh, parti politique pour mën a tey jii nekk des femmes des femmes valables yoo xam ne mën nañ leen def ci liste parce que la plupart du temps quand on critique le parlement l'Assemblée nationale cest on est toujours derrière ñun jigéen ñi. c'est-à-dire on s'affirme pas je dirais assez on se bat pas peut-être assez dans les instances internes des partis politiques parce que parité bi réussir nañ ko à un niveau national avec la loi mais dans les partis politiques da ngay gis bureau politique boo xamante ni wala secrétariat national boo xamante ni. Mhm. c'est-à-dire doo am égalité homme femme. mais loolu si fautu kan la. je pense que femmes yi war nañ gën a affirmer wu réaffirmer seen leadership effectivement sa battre parce que en politique comme on dit rien n'est acquis rien n'est donné mm. da tout tout s'arrache merci beaucoup maintenant par rapport euh, excusez-moi par rapport ak li nga xamante ni mën nañ ko xool à un autre niveau au niveau des instances internes il y a des choses à faire il faut se battre encore mais également au niveau national parce que on est dans les instances de décision électives et loo gis asam euh, gouvernement du Sénégal on n'a pas la parité on n'a que huit femmes ça aussi c'est des combats à mener ak euh, euh, pardon neuf man je dis neuf neuf huit ou neuf si je ne voilà donc alors que nous sommes cinquante pour cent de l'électorat hmm. du fichier électoral tey jii ñun bu ñuy fal jigéen ñi ñooy fal ak ndaw ñi. Mhm. tey jii je pense que jigéen ñi war nañ gën a jotaat seen place ci ci ci échiquier politique nationale bi te loo xamante ni dañ koy jël ci compétence jël ko ci ay valeur mhm. parce que jigéen aussi certes nañu même les institutions financières internationales léegi suñuy jénk dénk dañuy dénk jigéen parce que jigéen ñi dañu loyal jigéen ñi dañu fidèle jigéen ñi dañu am lu ñuy bañ.